salut les amis de babo encyclopédie Guy. j'espère que vous ah, woy like abonné et surtout de année. ba cycle de notification pour partager vidéo bienvenue dans votre chaîne bi nga gars histoire football actualité politique et tout mais jangat lañ ci def ñu ñun dugg ñu ci nekk ñu di nekk partie primaire leen di defal culture générale histoire wax ci walum football walum social walum histoire au Sénégal et tout pour ngeen ci gëna mëna yox seen xam-xam gay tay nak on va parler de l'histoire du football may wax nak football ni mu doré fan la doré ak aussi ba fiñu toll tay ji ni lan mo waral également football bi ñu am 100 93 états yoo xam ne ñoom la ñu reconnaître comme ay état équipe nationale yi ëpp loolu la ñu fas yéene waxtaanee d' abord tey football bu ñu ba di ko ràññee am na ñoo xam ne bay nañ ci seen waar Kouchimelne également du côté donc du Brésil du roi Pelé Edson Arantes do Nascimento Pelé il y a également Diego Armando Maradona Zinedine Ronaldo Messi ñoom El Hadj Sadio Kaysa Magnifique Mané comme je l'ai dit les états reconnus par l'organisation internationale 193 états la ñu reconnaître comme ay états comme ñu Sénégal état et tout mais de seetlu FIFA de forme 211 équipes nationales lu tax nak, nag la il faut que nous ne gars yi lu Royaume-Uni Royaume-Uni déjà le Royaume Uni nga xamne benn gox la dafa am ñent équipe am na ñi nga xamne donc Angleterre am Pays de Galles am aussi li nga xamne moy euh, Irlande du Nord am Écosse côté bobu rek déjà ñom non lañ former loolu ay équipe nationale lañ bu ñëwé également ci benen patch bi ngeen gis ne aussi kii di Chine dafa am Chine am Hong Kong aussi nek équipe nationale pour ñu ko xamu won Nouvelle-Calédonie aussi am équipe national territoire palestinien également Palestine et Israël aussi Palestine voit FIFA une reconnaître aussi comme une reconnaître Israël comme le fanek aussi équipe nationale D'abord, il faut savoir que le football dans les années 1863 précisément le 26 octobre 1863 l'année de Londres lañ a commencé di fësal li nga xam football en Angleterre donc c'était au début entre le 19e et le début du 20e siècle donc loolu fédération yi nekk foofu structure yi nekk foofu noonu nee ngir wàññi tension yi xeex yi am violence bi am ci école yooyu ñu di aussi football sport boo football lañ ko tuddee mais loxo du ci bokk tànk kese lay doon non, la lawee ba 1894 jigéen yi foofu noonu ba tey en Angleterre en Londres ñu daal di créer football aussi pour jigéen yi pour vous dire que ne footballu jigéen aussi yàgg na même bu fekkee. développé wuñ ko bu baax mbir yi di dox mbir yi di dox football bi di évoluer ba nit ñu bëri sax léegi bu ñuy dem di gox ak gox pour wan leen ne la football bi dem ba euh, dem ci ak gox yëpp moo dañoo dem ba mujj gi ñenn ñi bu ñuy déplacé wu dañuy jël seen i saak def fa seen i bal yóbbaale ko gox bi ñu jëm parce que jamono jooju noonu ay avion bari woon et tout donc euh, bateau yi ak yooyu train yi ak yooyu la gars yi doon jël nànk nag oto yi ba mbir yi développé donc bu ñëmee si gox samp ko fa affaire yi di law di law gars yi nag di wëy ba li nga xam mooy 1904 1904 également lu tolloog nag euh, ñett juróom-ñaari kurel ya dajé ci Paris ci Paris lañ dajé ndax FIFA ñu ngi ko créé gaay ci Paris précisément également dina leen jox date bi ñu créé FIFA donc ñu créé FIFA donc au mois de mai 1904 né légui nak dañuy créé kurel go xamné nak mom moy amal li nga xamné moy euh, football gi ni ñu koy déwé ñu koy yaatalee règles yi et tout et tout et tout loolu nag ci FIFA la judo FIFA nak gaay création bi précisément c'était donc le 21 mai 1900 4 jàpp ko 21 mai 1904 lañ créé donc kuréel gi nga xamné donc moy donc li nga xamné moy mooy organiser lépp luy walu football ci wadlum aduna wërngël cup ñuy dox nak football yi di évoluer gox yi nga xamné nak nag nañ ci Afrique laal ci football gi Afrique du Sud ci la bok ak wa Algérie donc Afrique du Sud également euh, parce que y avait les Anglais xam ngeen ko Anglais aussi développer li nga xamné moy donc football fofu noonu au niveau de l'Afrique du Sud muy dem ci Argentine dem ci Uruguay. D'où aussi Ouganda Ouganda aussi Beaucoup na gens am ba première coupe du monde mi ngi 1930 la première coupe du monde am Uruguay organisé won a nak gay c'était équipes 13 équipes. Nous avons won organiser li nga première coupe du monde première coupe du monde nous avons également ci la jaaree oui, ñu gis né équipe sud américaine yi Amérique latine bi ñom aussi commencé ci am des dayo bi ba ngeen commencé ci dégg ki nga xam Exxon, Edson Arantes do Nascimento Pelé le roi Pelé l'homme au mille buts après aussi il y a eu Diego Armando Maradona ñu japp né c'était le meilleur joueur au monde après ñu dem di wax ba 1934 Italie organiser également li nga donc coupe du monde donc Campionato Mondiale del Calcio gis ngeen Italie donc football di évolué beaucoup de boobu gars 1934 l'Italie a organisé ñu dem aussi en Russie dans les années euh, guerre bi commencé donc ci donc 1945 URSS bi et tout et tout c'est la mais waa Spartak de Moscou. Spartak de Moscou également ñom ñëw utiliser football comme pour révolutionner un peu la hiérarchie ak aussi li nga xam moy monarchie bi amone fofu donc pendant monarchie sax amone li nga xam moy donc mouvement populaire bi amone fofu jégalu ma monarchie bi fa amone. donc tay ba dox ci gis ngeen ñi ni ñoo créé li nga xam donc Spartak de Moscou tu vois ñom ñent ñi les frères ñu daal leen di euh, tëj après aussi football bi évolué côté bobu di mag. ñëw nak aussi du côté de l'Afrique 1958 Algérie donc tout le front de libération nationale ñom nak ñu daal di organiser sen li nga xamné moy donc sen équipe nationale nak ndortel gi FIFA dalena leen a len won né duñ ci bokk mbir di dox di woy ñom ñu insister ñëk créé équipe bo xamné la plupart donc ñi ngi nekkoon France lañ nekkoon mais c'était des Algériens d'origine donc ñuy commencé di amal sen équipe ba tay mbir di woy di woy di woy di woy ba Algérie aussi bokk ci précurseur du football bi au niveau de l'Afrique donc avec l'Afrique du Sud l'Ouganda et tout ñu amal sen équipe nationale donc hymne national Algérie bi ci le jógee ngeen dégg également et un et 2 et 3 viva l'Algérie donc 1962 lol con slogan Algérie ba national et tout et tout et tout football aussi gars yi di wéy di dem ñu ne ngir yaatal 1994 le football américain en ampleur avec la coupe du monde organisée aux États-Unis ñu gis ne américains aussi médias yi commencé ci dug valoriser ko sponsoring bi commencé di dox mbir commencé di donc le football nag àgg dayo sponsor yi commencé di ñëw gis ngeen ko ñuy commencé di gis yenn mayo sponsoring gis publicité également ci télé et tout donc le football commencé di gën ampleur mondiale même bu mais dayo gi di a également ngeen gis pay gi di jëm ci kaw et tout ngeen gis ne aussi kii di Afrique du Sud nag moom organisé na li nga xam mooy coupe du monde l' Afrique du Sud gars yi organiser la coupe du monde mais coupe du monde boobu nag Afrique du Sud amu ci yenn retombées financière yi nga xam ne njottoon ne dina ko am parce que boobu tamit également ah, mbir yi demoo demeewoon na noonu mais aussi l' Afrique ne maîtrisait pas forcément nan la football doon demee mais quand même diggante 2006 ba 2018 ñu est passée audience bi et tout passé na 1 milliard à 3 millions à à milliards plutôt en 2018 en matière de rentrée de fonds ci coupe du monde en matière également dimanche et tout mais ba 2022 2023 ça a jëlaat une ampleur 2022 Qatar organisé ko Qatar nak ba muy ñëw euh, coupe du monde Qatar dafa def lo xam gaay defu ko moy que ne dafa déjà impliqué benn politique avant ñoo dugg ci ñom dem ba imposer wu parce que Qatar yi bari wuñu mais dañu ñëw jënd ay club yu nous jënd ñi nga xam donc ni di euh, Barça ah donc nekk sponsor de Barça Qatar un ñoo sponsor Barça ñoo jënd Paris Saint-Germain ngeen gis également yeneen équipe yeneen dëkk yu mel ne Émirats arabes unis di jënd ay ay club ñu gis ne Manchester City également Arabie saoudite moom ko Émirats arabes unis ñëw moom li nga xam ne donc Manchester City ah, Newcastle Arabie saoudite Qatar moom Paris Saint-Germain football di développé ba ñoom tamit ñu imposé wu ba organiser li nga xam ne nag donc coupe du monde 2022 donc gars yi résumé le bu ndaw rek ci li nga histoire football nan la jugé création FIFA lutax tay ngeen xam ngeen am 211 équipe nationale alors que 193 pays l'union internationale da di reconnaître gars prochaine vidéo bi nak ci waxtaan François Bokade jaa